jafe-jafe dina ci am lii nekk nag ci doomu aadama alhamdulilah rabbil alamin macha allah fii ci Touba war na tax ñun ñiy féetewoo nguur am responsabilité tamit fexe ba nit ñi dëkk ci senegal ak bërëb bu ñu fii dëkk jafe-jafe bu ñu am ñu taxaw ci saafara ko ci nu ma gën a gaawee moo tax li war yépp ci taxawaay ci nguur ci liñ mosta def